sëriñ afiya buso sëriñ afiya buso mi ngi feeñ jamono ci atum 1867 ci dëkk bu ñuy wax naawel booba waa juróom wa sëriñ buso bi buso nag mi ngi woon ci dëkk boobu nag di naawel foofu la doomam jooju nag di sëriñ afiya buso feeñ jamono ci atum 1867 sëriñ afiya buso di doomu soxna mati ñang ak ku ñuy wax sëriñ buso be buso sëriñ buso be buso mi meññ sëriñ afiya buso nag mooy nijaayu ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim ndax sëriñ buso be buso ak soxna jaaratullaahi ñoo bokk benn waajur wu góor ak waajur wu jigéen sëriñ aafiya buso na soxna mati ñang mooy ki ko meññi soxna mati ñang mii na doomu sëriñ ceerno kar ko ñang la bu jolof sëriñ aafiya buso na soxna mati ñang moomu ko meññi nag am na ñum ko bokkal ñu ràññee ci ku ñuy wax soxna awa buso bintu soxna mati bintu sëriñ busoobe buso ak ku ñuy wax cheikh ibrahima buso ibnu soxna mati ibnu sëriñ busoobe buso ak moom sëriñ aafiya buso ibnu soxna mati ñang ibnu sëriñ busoobe buso kon ñaar la bokkal waajur wu jigéen ak moom muy ñett kenn ku góor ak kenn ku jigéen soxna awa buso mi bokkal soxna mati ñang ak kii di sëriñ busoo bi busoo moo meññ cheikh mamadul faadal mbàkke ibnu xaadimu rasuul moom sëriñ aafiya buso nag bi matee dal alxuraanul karim waajuram moo ko dalal alxuraanul karim di sëriñ busoo bi busoo ginnaaw bu ko waajuram dalalee lii di alxuraanul karim jébbal na ko magam ji nag sëriñ mbàkke buso sëriñ aafiya buso nag def na ab diir ci loxoy magam jooju di sëriñ mbàkke buso ginnaaw sëriñ mbàkke buso nag bi sëriñ tubaa seexul xaddim jógee mbàkke kajoor ñëwoon yéene sañ si dëkk bu sell bi di Touba ak Daaru Salaam ci boobu nag la ko waajuram jébbal sëriñ Touba Seexul Xaddim moom sëriñ Afiya Buso mu wéy nag nekk ci loxoy sëriñ Touba Seexul Xaddim Seexul Xaddim nag moo ko eggaleel njàngom alxuraanam ak lii nag di njàngom xam-xamam mu wéy nag ànd ak ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xaddim ba ni sëriñ Touba Seexul Xaddim sañcee Daaru Salaam sañc Touba diir bi sëriñ Touba Seexul Xaddim def Touba itam sëriñ Afiya Buso mi ngi woon ak ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xaddim ba ni sëriñ Touba Seexul Xaddim demee Mbàkke Baari Jolof keroog bi sëriñ Touba Seexul Xaddim di dem mbàkke baari jolof sëriñ afiya buso ci ñi àndoon nag ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim ci la bokkoon te itam sëriñ afiya buso ci ñi yoroon bagaas yi itam ci la bokkoon ba tax na gaal yooyu mu yan woon ñu jóge tuubaa fas yéene dem mbàkke baari jolof am na ci gaal gu sëriñ afiya buso yan woon gaal googu ginnaaw diisaayu gaal gi bi sëriñ afiya buso yanoo tuubaa ba mbàkke baari jolof bi mu yenni ko lii di deru bopp bi dafa toppoon gaal gi waaye nag loolu yéemoon na ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim bam laaj ko ko seexul xaddiim ñang ginnaaw bu ko seexul xaddiim laajee ahmadu ñang lii lan la mu di ko wax ne gaal gi ma yanu de bi ma ko yenni koo la deru bopp bi topp gaal gi seexul xaddiim nag yéemu woon na ci loolu laaj na itam sëriñ aafiye buso nag lan la bëgg nag ci jëf jooju mu def sëriñ aafiye buso di ko tontu ne xanaa gën laa bëgg rek yow ku baax ki sëriñ tuubaa seexul xaddiim seexul xaddiim ñaanal na ko sëriñ aafiye buso nag wéy nag des mbàkke baari jolof ba ni ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim demee ci géej gi mbàkke baari jolof googu itam biñ fi nekkee ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim la waajuroom wa sëriñ buso bi buso génn génn àdduna ginnaaw bu seexul xaddim jaale jenn jaayam jooju di sëriñ busoo bi buso ba noppi ab diir lañ fi teg muy lu tolloog ñaari weer ak benn fan ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim dem ci géej gi bi sëriñ tubaa seexul xaddim di dem ci géej gi ci mbooloo mim dénkoon maam ceerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru sëriñ afiya buso mi ci la bokk fépp foo xam ne nii maam ceerno ibrahima faati jaar na fa ak njaboot gi yóbbaale woon na sëriñ afiya buso ba ni sëriñ tubaa seexul xaddim joxe ndigal ki di maam ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru mu sanc dëkk boobu di daaru marnaan na ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru sancee dëkk boobu di daaru marnaan ba noppi itim seexul xaddim itim ci ñim dëloon daaru marnaan sëriñ aafiya buso ci la bokk ba tax na lu ëpp ci njabootu sëriñ aafiya buso ci dëkk boobu di daaru marnaan lañ feeñe jamono daaru marnaan googu itim la sampe kër moom sëriñ aafiya buso ñu boole woon kook soxna suñuy wax soxna faati kandi mbàkke di doomu mammoor jaara magi makk ak beneen soxna bu ñuy wax soxna asta waalo soxna faati kandi mbàkke moomu bintu mammoor jaara moom moom meñ sax soxna aminta buso ak ku ñuy wax sëriñ moodu faati kandi buso sëriñ moodu faati kandi buso moom mi nekkoon taawub sëriñ afiya buso ak kii di soxna faati kandi mbàkke moom mammoor jaara moo njëkk a wuutu sëriñ afiya buso soxna aminta faati kandi buso bintu soxna moom mammoor jaara ak sëriñ afiya buso bi mu matee dem kër sëriñ mulaay buso lañ ko joxoon bu sëriñ mbàkke buso ba moo meñ sax taawub sëriñ mulaay buso bii di sëriñ moodu mulaay buso sëriñ afiya buso nag wéy nag nekk ci loxoy maam ceerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru ci dëkk boobu nag di daaru marnaan ba ni sëriñ tubaa seexul xadim ñibbisee gi ginnaaw bu sëriñ tubaa seexul xadim ñibbisee nag ci géej gi jaar fi mu jaar ba ñëw daaru salaam ñëw daaru marnaan na faa nag kii di sëriñ afiya buso mu wéy nag nekk ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim ab diir bu néew nag la fi ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim def mu amaat fi takk-takk nag ak mbaaxaan tubaab bi duggaat ci ñu yóbbuwaat ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim nag ci réew moomu nag di gànnaar gànnaar googu itam kii di sëriñ afiya buso itam dem na fa sëriñ afiya buso itam daana fa yónnee nag lenn itam ci njabootam ngir ñu dem seeti ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim foofu ci gànnaar ginnaaw gànnaar ca yéen jolof ca yéen jolof itam ci di sëriñ afiye buso daana fa dem ngir seeti ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim foofu mu nekk nag ci résidence surveillée boobu ba tax na am na bi sax soxna si mu dëkkoo woon di soxna asta waalo la fa àndaloon ca yoon wa ngir seeti ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim ndax soxnaam soosu mu dëkkoo woon di soxna asta waalo seede na ko ginnaaw ca yéen jolof njaareem njaareem googu sëriñ afiye buso daana fa dem ay yooni yoon itam di fekki ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim bu ziyaaree ba noppi nag del siwaat fi ko seexul xaddim dël di daaru marnaan ndax daaru marnaan gi kat ginnaaw bu ko maam ceerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru sancee ba pare ci ndigalul ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim seexul xaddim itam ci mag ñi féetale woon daaru marnaan kii di sëriñ aafiya bu so itam ci la bokk loolu moo tax heure bu ma saa dem fenn ziyaare ji ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim ba noppi day del siwaat nag fi ko seexul xaddim dël muy daaru marnaan ba tax na daaru marnaan googu njabootam gi bindoon nañ fi ay kaamili alxuraan mu ànd ak ñoom yit ko ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim ci njaareem keroog seexul xaddim yéemu na ca mbind ma teg ca nag di wax njabootu sëriñ aafiya buso ak sëriñ aafiya buso di ko loola itam taxoon na sëriñ aafiya buso nag fonkoon bërëb boobu nag di daaru ba yoroon na lu ëpp ci njabootam moom mi moo leen jàngal ak ñeneen nag ci yoonu murid wi loola itam taxoon na mag ñu baree baree bari ko moom sëriñ aafiya buso mi ko amoon relation ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim moo xam mag ñi toppoon ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim moo xam njabootu ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim mag ñi toppoon ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim maam ceerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru ginnaaw bu seexul xaddim demee ci géej gi ba ni mu ñibbisee ci ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru nag la ko tegoon kon sëriñ aafiya buso ku jaxasoo woon ak maam ceerno la ba diirub li sëriñ tubaa seexul xaddim nekk ci géej gi mi ngi ci loxoy maam ceerno maam ceerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru moom sax tax na kii di sëriñ aafiya buso tudde na ko doom doom ndax ñeenteelub xalifa sëriñ afiya buso bi di sëriñ ceerno buso afiya maam ceerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru la ko tuddee maam moor jaara mage magitim ku jaxasoo woon ak sëriñ afiya buso la ba tax na bi sëriñ afiya buso matee samp kër doomu maam moor jaara mage mag lañ ko jébbaloon muy soxna faati kandi mbàkke bintu maam moor jaara ba tax na sax doomu sëriñ afiya buso yu mag yooyu soxna faati kandi mbàkke mi bintu maam moor jaara sax moo ko amoonuk jaxasoo la ak maam cheikh anta mbàkke borom dërëm ak ngërëm ko amoonuk jaxasoo la ak cheikh masàmba mbàkke ibnu mamor anta sali mbàkke ba tax na sax bari na ci doomu sëriñ aafiya bu sëy cheikh masàmba mbàkke ibnu mamor anta sali mbàkke moo leen wutal nag aw tur ci ndigalul ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim wala biñ matee amu tur moom moo leen tudd lool itam tax na sëriñ abdu mutalib buso nekkoon ñetteelu xalifa sëriñ aafiya buso tudde na ma masàmba mbàkke nu mamor anta sali mbàkke doom ngir cofeel gu waajuram amoon ci moom jarbaatam sëriñ aafiya afiye ñang ñoom ñaar moom ñoo bokk kuñ leen tuddee te sëriñ afiye ñang soxna awa buso mi ko meññ mook sëriñ afiye buso ñoo bokk soxna mati ñan ak sëriñ buso be buso sëriñ mbàkke buso mi nekkoon nijaayam itam xaritam la woon ndax jëmm jooju di sëriñ afiye buso sëriñ mbàkke buso moo ko jàngal nag lii di alxuraanul karim kon ñaari jëmm yooyu moom amoon nañu jaxasoo sëriñ maxtaar bintaloo bokkoon itam ci jàmbaar yi toppoon ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim ku nawoon sëriñ afiye buso la ba tax na sax def na seede su yaatoo yaatu ci jëmm jooju di sëriñ afiye Moxtaar Binta Lo moom na am na xasida gum bindoon doon ci tawasul doon ci ñaan nag ci dara jëy mbokki sëriñ bi soo demee nag ca fa muy tudda kii di sëriñ Afiye Buso ci xasida googu mu bindoon moom sëriñ Moxtaar Binta Lo ci jafe-jafe nag yu àdduna bi nag dëkkee loolu moo nekkoon nag sababum nag sëriñ Moxtaar Binta Lo nag bindoon nag xasida gii boo demee nag ca fa muy tudda sëriñ Afiye Buso ma ngay wax ne murit saa deex la ku ragal nag suñu boroom la mu ne ko bari ay may la ku amoonuk cofeel nag la ku baax ki sëriñ ba tey nag sëriñ aafiya buso foo ko fekk nag mbégte rek nga koy fekkeel mu ngi ñaan nag ci darajey sëriñ aafiya buso moom suñu borom nag yokk ay mayam ci melokaanu sëriñ aafiya buso daal ak jikkoom ak ni mu bëggee ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim ak ni mu nekkee royukaay ci daraja jooju daal la sëriñ maxtaar bintaloo doon ñaan li muy sàkku nag ci suñu borom suñu borom may ko ko ci daraja jooju ñu teewlu nag xasida gi sëriñ maxtaar bintaloo bindoon doon ci tawasul te doon ñaan nag ci darajey mbokki sëriñ bi fa mu tudde sëriñ aafiya buso nag lii nag la ca wax masaaya alaasiqi ahmad ñang alwaasiqi del bisri wa tahabubi imla fuaadiya huda wa saqilanhu min sada darra'i min kulli sada fi sahwi wa taghayubi waj'alni ad-dahra mughif li kulli man bi yastaghif lima arahu ya mughif min ab'adin wa aqrab loolu la sëriñ maxtaar bintaloo nag bindoon ci xasida googu mu bindoon nag doon ci tawassul da doon ñaan nag ci mbokki sëriñ bi bi muy tudd nag sëriñ aafiya buso nag ci biir mbokki sëriñ bi loolu la ko seedeel comme jikko jikko jooju sëriñ aafiya buso yoroon nag taxoon na itam jarbaatam cheikh mamadul faadal mbàkke ibnu sëriñ tuba daara seexul xaddiim daana def itam ñaare bépp donga bu nekk ci daaraam ji nekk gan bala yóbbu nag ci yenn ci daara yi mu jaarale la ci loxoy yi Afiya Buso lettre bii nag Cheikh Mamadou Fadal Mbàkke mu sëriñ Tuubaa seexul xaddiim moo ko bindoon sëriñ Afiya Buso ngir nag di ko jébbal ay donga mu Mamadou Fadal Mbàkke nag mi ngi koy wax ni ñii ma la yabalal nanga def ci ñoom nag ak farlu comme ni nga ko daa defee rek at yi weesu ci donga yi ma la daa yabalal foofu nag ngir ñu ñëw ci yow di fa liggéey na fa ma lay jox itam defal noonu rek comme ni nga ko daa defe nag ci donga yi ginnaaw bu dong yooyu ñëwee nag ba nga toppatoo leen fuñ mën a bayee su ma ko yëgee nag man danaa leen wutal nag luñ mën a bayee moo xam mbaam moo xam giléem ak lii nag di jiwu ñu teewlu lettre bi Cheikh dul Fadal Mbàkke bindoon nijaayam sëriñ Afiye Buso ngir nag di ko jox ay dongo yoo xam nii nag sëriñ Afiye Buso nag da leen di liggéeyloo ñu teewlu lettre bi allahuma salli ala sayidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam arada ma xalaqallah bismillahi rahmani rahim assalaamu alhamdulillahi waxda amma salaamu ala man la nabiyya ba'da wa alihi wa sahbihi amma ba'd fa salaamun taamun wa ikraamun aam min indi hayyika alfaadil ilayka ayyuha alxaal almardi alcheikh ahmad ñang buso qadallahu xawaaijana wa xawaaijaka zaahiran wa baatinan aajilan wa aajilan muujibahu i'laamuka bi anni fi xeyrin wa aafiya maa anni amartu haa'ulaa'i bil ityaani ilayk wa hum itnaa ashar litajtahida aydan fi umuurihim kullihaa kamaa kunta taf'alu fi al'aami almaadi bal fawqa daalika limaa ra'aytu fiihim alhamdulillah min arrujuliyati walxirsi ala alxidma wa ja'altuhum salaasata aqsaam awalan ay yakun maa daawuda wa mbaal fa ma anta wa rajulun axar yati yuqaal lahu Omar Thiam wa huwa al aan marid thaniyan wa Omar Ndiaye yakun maa Gallaay wa Omar wa Malick thalithan wa Ndiagal yakun maa Mafari wa Omar Ayib wa innaka tatlubu lahum mawdian waasian nafisan xataa yaqdiruna an yasracu xaayata wusaxi min duxnin wa gerte baxda ba talabtu ximaaran aw ibalan yashabu ila taytay li yatiya ma kaana hunaalika min basari gerte allati tarakahu hunaalika Omar Ndiaye wa salaam lettre boobu la ko Cheikh Mamadou Fadal Mbacke bindoon ngir naw jikkoom ci noonu Serigne Afia Bousso di tarbiya Mamadou Fadal nag bindaatoon na beneen lettre nag nijaayam sëriñ Afia Bousso ma ngi koy wax nag ci biir lettre bi ginnaaw bu mu ko nuyoo mi ngi koy laaj nag ba xam moom mi ngi ci jàmm moom Cheikh Mamadou Fadal Mbàkke nag mi ngi wax nijaayam nag di ko xamal ne moom moom mi ngi ci jàmm Cheikh Mamadou Fadal Mbàkke nag mi ngi wax nijaayam ci biir lettre bi di ko wax ne nag fan yi danaa la yebalaatal ay donga ngir ñu ñëw foofu nag jàppale la nag ci liggéey bi loolu moo nekkoon sababu lettre bi waaye nag soo demee ba ci biir lettre bi Cheikh Mamadou Fadal Mbàkke nag am na leneen nag lu mu doon sàkku nag ci sëriñ Afia ni jamono ji nag ñi ngi déglu nag lettre bi ndax mbir moom kat diggante Cheikh dul faadal Mbàkke la ak Serigne Afia Bousso kon nag képp koo xam ne nii nag yaa ngi déglu nag ñu ngi la ciy jégglu waaye nag ñu indil leen ci biir lettre bi fi Cheikh dul faadal Mbàkke doon waxe Serigne Afia Bousso ne ko fan yi moom dinaa la yebalal ay donga ngir ñu jàppale la nag ci liggéey ba la ca des nag ñu ngi ciy jégglu ñu teewlu lettre bi ila Cheikh Afia minni salaam mujibahu i'lamuka bi anni fi khairin wa afia usallimu alayka wa ubashiruka bi anni amuru talaamisa fi hadihi al ayyam bi an yatu ilayk wa yuinuka ala jamici ma taxtaaju ilayhi min al xidmati qadran maaluman wasalaam lettre boobu nag la ko cheikh mamadul faadal mbàkke bindaatoon sëriñ afiya buso nag nekk nag ku yéeme ku kiimaane ba tax na ñi bokkaloon atub ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim ñu ci bari bàyyi nañ ko xel mu wéy nag des nag ci dëkk boobu mu nekkoon di daaru marnaan di jàng ak di jàngale comme ni ko yoonu murit nag baaxoo nag di defee sëriñ afiya buso nag amoon na ay wetu daaru raxmaanu sëriñ abdullahi mbàkke boroom dër bi foofu sax ginnaaw bu sëriñ tuuba seex saaliyu mbàkke toogee xalifa bay nattaat nag lii di dëkk bi fob na nag njabootu sëriñ aafiya busa gi jébbal leen foofu ngir nag da ci barkeeru ci daraja joojee seen waajur wa daa baye ba tey sëriñ aafiya busa cim amaatoon na suuf nag fii nag ñu tudde daaru marnaan barab bi foofu itam ay toolam la woon te itam daana fa baye ba tax na sax foofu sax la duggee woon xalwa ci daara jooju fi nekkoon foofu sax la génne àdduna fa lañ ko denc ci atum 1930 mu nekkoon nag ku yéeme mën a yare moom sëriñ aafiya Mathieu Bousso ba tax na am na benn bis ci donga yim doon tarbiya ku ci demoon fenn ñëw nag for nag lii di xaalis xaalis boobu mu foroon ginnaaw bu ko sëriñ Afia Bousso yëgee sàkk woon na nag ci mag ñi nga xam ne ñoom ñoo gënoon a kawe kooku nag ci ay at ñu ànd ak moom ci naaju tàng wi mu dem delloo fa mu fekkoon xaalis boobu mu tegaat ko fa ginnaaw bu kooku àndeek ñooñu nag bañ delloo xaalis bi ba noppi sëriñ Afia Bousso nag doon na sàkku nag ci jëmm jooju nag ñu yar ko lim jublu woon ci loolu nag mooy ragal yàlla gi nekk ci moom mu def ko ci mbooloo mi ko topp bari nag fonkoon ko ngir kóllëre ba tey ci kóllëre yi sëriñ Afia Bousso amoon kii di sëriñ Balla Faali Jeng wóllërew sëriñ Afia Bousso la woon Cheikh ma baabu Géey bu sëriñ Afia Bousso saa dem njaareem nag di seeti ku baax ki sëriñ Tubaa Seexul Xadiim kër Cheikh ma baabu Géey la daa dal kon ak wóllëre moom amoon nañ ko ak ak cofeel sëriñ Amsatu Jaxate ko amoon kóllëre la ak kii di sëriñ Afia Bousso ba tax na sax am na xasida guñ tudde xasida ak maraaxib kii di sëriñ Amsatu Jaxate mooy kii ko am na bisitim kii di sëriñ Afia ko di ko baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim ginnaaw bu ko seexul xaddiim laajee ahmadu ñang loolu ngay jàng lan la mu di ko wax ne jaalibatul maraaxib la ginnaaw bu seexul xaddiim jëlee jaalibatul maraaxib boobu bindalaatoon na ci sëriñ afiya buso nag baneen tarjimaan ginnaaw bu ko seexul xaddiim bindalee ba noppi nag ma ngi koy wax ne ahmadu buso maa la ko buuñaa ñu teewlu ginnaaw bu sëriñ afiya buso doon jàng nag lii di jaalibatul maraaxib ci kanamu ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim ngir fonk gum fonkoon nag lii di xasida ba seexul xaddiim nag laajoon la mu jaalibatul maraaxib la seexul xaddim nag sàkk woon na jaalibatul maraaxib boobu sëriñ aafiya buso nag joxoon ko ko ginnaaw bu ko sëriñ aafiya buso joxee nag seexul xaddim nag bindaatoon na ci ginnaaw jaalibatul maraaxib boobu nag ganeen tarjimaan ñu teewlu tarjimaan ji seexul xaddim defoon ci jaalibatul maraaxib bi sëriñ aafiya buso doon jàng te seexul xaddim sàkkoon ko ci moom tam jox ko ko te ginnaaw bu mu ko ko joxee seexul xaddim bindal ko ci loolu ne ko maa ko buuñaa buuñaa baa ngi nii ñu teewlu ko bismillahi rahmaani sallallahu taala ala sayidina wa mawlana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman allahuma salli wa sallim wa barik ala sayidina wa mawlana muhammadin wa alihi wa sahbihi waktub lahu alayhi salatu wassalam bi hada annasmi arada xurufihi mutlaqan bisharatan xaalidatan abadan wa hab li kulli man yaqra'uhu saadatan wa barakatan wa aafiyatan daarayni amin ya rabbal alamin tarjumaan jooju nag la seexul xaddim bindaatoon ci jaalibatul maraqib bi sëriñ aafiye bu sa doon jàng te jaalibatul maraqib boobu sëriñ xamsatu jaxate moo ko bindaloon sëriñ aafiye bu so ngir cofeel gu ñu am amoon ñoom ñaar jaalibatul maraaxibu sëriñ amsatu jaxate boobu mu bindaloon sëriñ aafiya buso ak mbind moomu ci seexul xaddim bindaatoon ku dem ci njabootu sëriñ aafiya buso ñu wan la ko bëgg googu sëriñ aafiya buso bëggoon nag lii di xasiday ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim taxoon na itam ba seexul xaddim nag defaloon ko buuñaa boobu loola itam taxoon na sëriñ aafiya buso daaray alxuraan jëm amoon ci daaru marnaa nim daa jàngale alxuraanul la fa daa jàngale nag ba tax na ku masaa bindu xasida itam ngir teg ko ca na nag sëriñ Afiya Buso itam nekkoon na ku bëggoon xasida jàngale boobu nag mu daa def nag ci dëkk bii mu nekkoon nag di daaru marnaan taxoon na itam nag ñu baree bari ci yoonu murid itam jàngal na leen moom sëriñ Afiya Buso rawatina nag lii di njabootug boppam gi ba tax na itam am na benn bis njabootug boppam googu nag bindoon ay kaamil alxuraan nag mu faboon leen nag doon ko jébbali ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim ci njaareem ginnaaw bu mu eggee ci ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim ba Seexul jëmm nag ci mbind moomu nag doomu sëriñ Afia Buso yooyu bindoon Seexul Xadim nag keroog mi ngi wax ne kaamile alxuraan yi fañ leen binde foofu moom saytaane xamu ko booba nag sëriñ Afia Buso nag mi ngi ci diggante fii ñu ko denc di barab bi ak fii mu dëkkoon di daaru marnaan jàng ak jàngale googu mu nekkoon moom sëriñ Afia Buso tax na itam nag lu takku ci njabootam ay imaam lañ ci loolu nag la sax ba ni mu génnee àdduna ci atum 1930 laataa muy ku baax ki sëriñ Tubaa Seexul Xadim Seexul Xadim dajale woon na ñibbee Touba ba mu am ñetti at da ngeen ma fa fekk si ca biir juróomi mag ñooñu nag ñu mën caa ràññee ku ñuy wax maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baabul Muridiina bokkoon itam ci jàmbaar yi toppoon ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xadiim Cheikh Ibrahima Bousso doomu sëriñ Bousso be Bousso la ak ku ñuy wax sëriñ Moor Xuraja Mbàkke doomu maam Moor Jaara la mook sëriñ Baara Xuraja ñoo bokk benn waajur góor ak waajur wu ak moom moomu di sëriñ Afiye Bousso di doomu sëriñ Bousso be Bousso Seexul Xadiim moo leen xamaloon ne bis bu ñibbisee Touba ba am ñetti at ñoo ñooñu danañ ko fekk si Touba mag ñooñu nag defoon nañ takk nag waxi ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim ba tax na bi sëriñ tubaa seexul xaddiim génne àdduna ci bisub talaata fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru muharram ci atum 1346 ci gàddaay gi dëppoog muy mardi 19 juillet 1927 mag ñi nag wéyoon nañ nag di takk nag waxi ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim jooju mu leen waxoon ne bis bu ñibbisee tuubaa ba mu am ñetti at ñoom danañ ko fi fekk si loolu itam nag mag ñi wéeloon nañ ko ci seenu dund boolewaale ko ci ba tax na ñoom ñooñu daanañ nemm konte saa su ne ngir wax jooju leen seexul xaddim waxoon mag ñi nag wéyloon nañ seenu dund ba ci atum 1930 cheikh ibrahima fall lamp baabul muridina nag mooy ki ci njëkk a génn àdduna ci mbooloo mi seexul xaddim waxoon ne bu ma ñibbee Touba ba ma am at da ngeen ma fa fekk cheikh ibrahima fall nag mi ngi génn àdduna bésub talaata juróomi fan ci weeru muharram ci atum 1349 ci gàddaay gi dëppoo muy mardi 3 juin 1930 ginnaaw bu cheikh ibrahima fall dëggalee waxe ku baax ki sëriñ Touba seexul xaddim ci wax jooju mu waxoon mag ñooñu guddik talaata googu nga xam ni ci la Cheikh Ibrahima Fall génnee àdduna di juróomi fan ci weeru muharram ci atu 1349 ci gàddaay gi dëppoo woon nag muy mardi 3 juin 1930 guddi googu mi ngi fekk ñaari jàmbaar yi ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim yii ci dëkk bii nag di Daarul Muxti muy sëriñ Ibrahima Bousso di kenn itam ci ñi sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim waxoon wax ji ak kii di sëriñ Mor Xureja Mbàkke bokk itam ci ñi sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim waxoon wax ji guddi talaata googu nag Daaru Muxti la leen fekk ci soxna suñu joxoon sëriñ Mor Xureja Khadija Mbàkke soxna sa nag mooy soxna Assu Mbàkke mi bokk ak sëriñ Abdul Xuddóos Mbàkke moom maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru benn waajur wu góor ak waajur wu jigéen ginnaaw bu leen xibaar bi fekkee foofu sëriñ Moor Khadija Mbàkke ak sëriñ Ibrahima Buso lañ wax ne nañ topp guddi gi delluwaat Tuuba ndax kat ab bâtiment bu fondement ba daanoo yàgg-yàgg bâtiment ba day daanu ngir bañ nag waxu Seexul Xaddiim jooju nag di leen fekk àll moo tax na ñu toppaat guddik talaata googu fanaan si sëriñ moor xuréja mbàkke nag génn àdduna sëriñ moor xuréja mbàkke nag mi ngi génn àdduna bisub dibéer fukki fan ci weeru muharram ci atum 1349 ci gàddaay gi dëppoog muy dimanche 8 juin 1930 sëriñ moor xuréja mbàkke moom nag génn àdduna di ñaareelu doomu aadama ju génn àdduna te bokkoon itam ca ña seexul xaddim waxoon wax ja ñetteelu doomu aadama ju génn àdduna ca bokkoon ca wax ja di sëriñ ibrahima buso moom sëñ ibrahima buso nag mi ngi génn àdduna fukki fan ak ñaar ginnaaw bu ñu dencee sëriñ moor xuréja noppi moom Cheikh Ibrahima Bousso nag mi ngi génn àdduna bisub ajjuma ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru muharram ci atum 1349 ci gàddaay gi dëppoo muy vendredi 20 juin 1930 la sëriñ Ibrahima Bousso nag génn àdduna sëriñ Ibrahima Bousso nag moog sëriñ Afiya Bousso mii nag ñoo bokk benn waajur wu góor ak waajur wu jigéen muy soxna Mati Ñang ak kii di sëriñ Bousso be Bousso ginnaaw bu sëriñ Afiya Bousso yëgee ne mbokkum ndayam moom nag génn na nag lii di àdduna jóge na nag daaru Marnaan nag ngir ñëwoon nag taxawu si nag doomu ndayam jooju di sëriñ Ibrahima Bousso Serigne Ibrahima Bousso nag mi ngi génnee àdduna ci tool yum amoon ci booru daaru xaddiim di jajji tool yooyu sax léegi dafa gént ci jajji googu nag la génnee àdduna ginnaaw bu Serigne Afia ñëwee nag ci bisub doomu ndayam boobu di Cheikh Ibrahima Bousso jàll na nag ci doomu baayam boobu di Serigne Massamba Faty Bousso mi mu bokkal Serigne Bousso bi Bousso ngir dem ziyaare ji ko ginnaaw bu mu eggee nag ci Serigne Massamba Faty Bousso moom ba noppi Serigne Massamba Faty Bousso nag jiiteloo na ko fa ak julli ginnaaw bu Serigne Afia Bousso jiitee julli ga ba noppi nag Serigne Massamba Faty Bousso nag doon na wax ne képp koo xam ne nii ki nga julli gi suñ boroom jéggal na la ginnaaw bu mu jógee gedde nag delsiwaat daaru marnaan ay fan yu néew nag lañ ci teg mu bokk nag ci mbooloo mi seexul xaddim waxoon ne bis bu ma ñibbee tuubaa ba ma am ñetti at da ngeen ma fa fekk te ci biir mbooloo moomu nag moom mii nag mooy ki ci mujjoon moom mi mujjoon ci mbooloo mi seexul xaddim waxoon ne su ma ñibbee tuubaa ba ma am ñetti at da ngeen ma fa fekk mi ngi génn àdduna nag ci weeru safar ci atum 1349 ci gàddaay gi ci at moomu di atum 1930 li tax nag ñu wax leen na ci weeru safar nag la génn àdduna sukkandiku nag ci yenn kàddu yu boroom xam-xam yi wax ne sëriñ Afiya Buso ak kii di maam Cheikh Ibrahima Fall lamp baabul muridiina weeru yàlla lañ rawantee te Cheikh Ibrahima Fall nag juróomi fan yi tamxarit nag la génn àdduna ci atum 1349 ci gàddaay gi kon loolu moo tax nag ñu jàpp na ci weeru safar woowu nag la génn àdduna ginnaaw bu mu génnee àdduna nag ci weeru safar woowu moom sëriñ Afiya Buso mi ngi génnee àdduna nag ci tool yii mu fonkoon di daaru marnaan tool yooyu nag moo tolloo woon nag fii ñu ko denc di barab bi ginnaaw bu génnee àdduna foofu di barab bu mu fonkoon loolu moo tax itam ak njabootam itam denc ko foofu ginnaaw bu mu génnee àdduna doomam ji di sëriñ Moodu Faati Kandi Buso moo ko taxawu moo ko jullee ñu jébbal ko boroomam ci fii na ndax bërëb boobu kat noonu la tudd waaye nag ñu ci baree bari barab ba rek la ñuy wax sëriñ Afiya Buso nag ay xalifaam nii la tëddee ci atum 1930 ba atum 1962 sëriñ Moodu Faati Kandi Buso mooy ki ko njëkk a wuutu ñaareelu xalifa sëriñ Afiya Buso mooy sëriñ Buso Elimaan moo fi toog ci atum 1991 ñetteelu xalifa sëriñ Afia Bousso ci atum 1991 la ba 2003 di sëriñ Abdou Moutalib Bousso ñeenteelu xalifa sëriñ Afia Bousso mooy sëriñ Ceerno Bousso ci atum ba nëg ni nag moom moo fi nekk ñu koy ñaanal suñ borom guddal aw fanam te wéral nag ay cëram yàggal ko lool ci toogaayu waajuram wow di sëriñ Afia Bousso ak mbooleem nag ñi mu séqal sëriñ Afia Bousso ak ñu ci man di bokkee suñ borom am na ko mën na ko yàlla na ko def sëriñ Afia Bousso nag am bëccëgu ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru koor jàpp guddig ñaar fukki fan ak juróom ñaar ci weeru koor bis bii nag mu dul faadal mbàkke ibnu xaadim rasul moo ko joxoon njabootu sëriñ afiya buso ngir di leen wax ne ñu fàttaliku nijaayam ja ca bis boobu bis bi nag keroog bi ko mu dul faadal mbàkke nag di jox njabootu sëriñ afiya buso gi ci teewaayu sëriñ mootu faati kandi buso la mi njëkk a wuutu sëriñ afiya buso ak ku ñuy wax baay saaliw caam baay saaliw caam nag jàngkatu xasida la bu nekkoon ci ginnaaw cheikh bis bi muy bëccëgu ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru koor jàpp guddig ñaar fukki fan ak juróom ñaar nag ci weeru koor ngir ñu ciy fàttaliku nijaayam jooju nan ci sëriñ Afiya Buso ci foofu ñu ko denc di barab ba di bustaan barab ba wala bu sëriñ Afiya Buso ñuy ñaan ci doomu sëriñ Buso bi Buso ba kam faye woon sëriñ Afiya boroom Jolof yàlla nañu ko suñ boroom fayal te yokk ay leeram te ñu ci barkeem te lii di jafe-jafe réew mi tam yàlla na ko suñ boroom saafara ci darajay Afiya amiin